jaajëf sama gars yi salaam jàmm kum benn ndigas baa ngi nuyoo leemaaku mëj wala waa dégg ko fay muy chef booy ji ji ji di terre ikay booy grand ikay messi ikay takk ikay mëne fu ne ikay renal di désert maa ngi leen di bëgg bu baax a baax di leen jaar vous êtes dans votre émission seen Sama Game tey nag dañ ñëw néegu rap fekk fi booy yi nga xamante ni jamono bi ñoom ñooy xendal game bi mu neex mu naqari yàlla dogal na ko sama gars yi ñu ngi ñuy daaj waa Akatsuki dinañ ñëw waxtaan ci nem bi waxtaan ci projet yi waxtaan ci jamono bi buzz bi yëpp ba xam dinañ ko téye wala duñ ko téye maa ngi daaj ak élément xel ñaar from PA from Gero ak Mr Khalil from PA sama waa ji Talla moom it mi ngi nii ndaanaan bi moom mooy staru kuréel bi ñu ñëw si sóor yi dinañ si ñëw léegi léegi la temps que sa waa ji ni dab euh, Mr Cash ñu xaaraale ko léegi léegi mais le temps muy ñëw dañuy démarrer émission bi élément nagam élément xel ñaar from Gero Bande. salaamaaleykum. Mhm. waa Equivox TV ñu leen di char di leen béggee bon je m'appelle Elémène Xel Ñaar Guéréo parcel 26 Pastef néegu rap music jaajëf joxal ma Xalil yé salaamaaleykum Sénégal <clears throat> Xalil xel mu sell Akatsuki SN wéré di wéré di daa kawam ay jaajëf ñu ñëw si Sori yeah salaamaaleykum from Akatsuki SN Yeah, Assalamualaikum Aduna, Assalamualaikum Senegal. C'est Talib BTB from Akartuki SN from jaajëf sama gars yi comme ni ñu ko waxee Akatsuki SN loolu laa gis ci net bi mais man ñoom su may dégg ñuy wax Akatsuki gang la ñuy wax lu waral loolu. Akatsuki comme ni ko sama waa ji di waxee tout le temps benn organisation criminelle la mi ngi nekk ci Mickey Naruto tu vois donc nu mu demee mooy. seen mentalité seen philosophie mooy dañuy dajale ay mercenaires yoo xamante ni dañuy jógee dans des endroits différents suñu leen dajalee pour benn objectif changer le monde wala changer li nga xamante ni moom moo nekk di xew instant bi seetlu nañ ko si ñun bu ñu ñëwee instant bi bu ñu ñëwee donte ku nekk juggi na si benn gox mais lépp parcelle la ba tey mais am na benn changement aussi bu ñu apporté si game bi donc Akatsuki boobu noonu nekk si Naruto bi akki moo nañ tur bi mais tamit jëfee nañ ko aussi xamante ni moom mooy def buzz muy Akatsuki bi wéradi wéradi wéradi wéradi élément lu ma jaaxal ci yow danga nga génnee benn freestyle ñor borot tri même pas une semaine euh, wéradi génn mu nekkoon benn freestyle section vidéo ci studio bi section studio mu génn def bëf ray sa son bee euh, revoir ngeen ko wala pas pas son bi sax mhm. parce que ñun moom wax dëgg yàlla feeling la ñuy def la ñuy defee quoi mhm. donc voilà donc yàlla moo xam lu tax affaire jaare noonu donc mhm. génn naa Nioro 3 ñu ngi doon prévoir leneen pour génneewaat ko yàlla nañu taxaw leen mhm. gën a yombal affaire yi kon mhm. yàlla la quoi donc voilà loolu mooy wax ni bon loolu moo loolu foofu ngay xamee que ni liggéey rek moo am solo quoi bon leneen lu ñëw tamit voilà quoi lu yàlla nam mooy kon bësu wéridi bi yàqul dara si non yàqul dara si Nioro Borote yi yàqul dara parce que mën naa wax ne bon ñor borot bi peut-être maa ngi doon préparer terrain bi. Mhm. voilà pour gars yi bàyyi ma xel. mais gars yi tamit bi ñu dégloo wéredi wéredi bi dem nañ mhm. découvrir kan mooy élément. waaw ah, donc voilà quoi donc wéredi bi dafa tax gars yi gën a découvrir élément. Mhm. gën a mën dem ba voilà quoi gën a xam lan la def li weesoo affaire yooyu noonu. donc noonu la demee quoi. yaa Khalil yooyu tamit nga nekkoon ci ay freestyle ay baron 1 2 3 xam nga ñu jékki-jékki saa gis nga baare ko. instant bi moom xam naa ne jubloo seeti ndax yaa ngi ci wéradi bi ba tey yéen ngi ci communication wéradi bi waxee rek mhm. boo seetloo bu wéradi bi génnee ñu bëri après doon waa di xool ñi ñooy ñan mhm. léegi boo demee suñu chaîne yi nga xam ne ñii déjà am na am na ci benn lancé bu ñu nekkoon mhm. wéradi bi peut-être dafa juste dafa ñëw confirmer si li ñu nekkoon waaw te peut-être que soxla du ma ne que yàq na ko mais dama dama gëm ne dama jàpp ne wéradi bi dafa ñëw gën koo dooleel te doole boobu noonu moo am quoi quand on dit mbooloo mooy doole moo tax on s'est on s'est on s'est uni depuis 2019 la nekk ci di ko job rédu bi dafa ñoo def confirmation boobu noonu si gars yi yëpp si man si élément si sori si si taala si Mr Cash lépp mais yàqul suñu su ci liñ nekkoon dara nekkul dara loo xam ne ko baare quoi wéri baarewul dara mais juste confirmation la quoi ak benn continuité bu ñu nekk rek la ça kon am na solo léegi damay ñëw damay ñëw si sori sori euh, bi ngeen toogee gis yenn rappeurs yu mag yi ay français ay Black M Booba ak ñeneen ak ñeneen partagé euh, seen vidéo bi nu mu leen def jour boobu. waaw bon mbégte woon quoi. Hmm. mbégte la boo xamante ne ñu ñëpp ko dundandoo suñu biir. Hmm. parce que affaire bu muy xew ñu ñoo nekkandoo woon fii. Hmm. nekk ci sens nii di nekkaat ci yeneen projet yu yi far yàlla def ñu gis affaire yi grande yi di partager mm-hmm. petit paa yeeg mère yëpp di si wax ci mm-hmm. vois donc loolu dafa nekk benn mbégte bu bu bu daw yaram buy daw ko mm-hmm. xam nga benn liggéey la boo xamante ne ñun dañ ko ñaxoon léegi faaw ñu jëriñu ko comprendre nga de ce fait kon ñu ngi ciy gën a ñu ngi ciy gën a sant yàlla quoi mais yow yaa ngi woon ci projet waaw ñu ñoo ngi ci projet ñun ñëpp ku si non comme yow carrière solo ak yooyu noonu parce que Agathe Tuggi yaakaar naa ni benn cartel la mais nekkul kuru ci ci ci ñun maa ngi si projet maa ngi si projet te gars yi tamit ñi ngi xaar ci projet bi incha allah l'essentiel daal mooy li war nañ ko def quoi. waaw mhm. joxal ma sa waay. yow noo ko dundee bi nga toogee gis ay ñoom plaque M euh, affaire bi. waaw ça fait plaisir moom franchement. Mhm. parce que ñoo xamante ne si télé bi nga leen doon gis. wala si YouTube bi nga leen doon gis tu vois nga foogoon ni que ñoom ils sont inaccessibles. Mhm. ñoom ñoo dem découvrir sa son ba pare ñoom ñoo ko partagé franchement donc ça fait énormément plaisir quoi. mais xaaru ngeen loolu noonu xam naa si rappeur Galsen yi ngeen ko xaaroon. Euh, xaaruñu ko woon si kenn parce que dañ doon liggéey suñu coin tëju di job xaaruñu woon ay diw partagé pour ñu mën a siiw xaar ñu woon diw jàpp si pour ñu mën a dem mhm. ku nekk dafa wóolu woon talent am wóolu liggéeyam mhm. maintenant nag. suñu defee lu ñuy def ba pare yàlla moom tamit mooy def lu muy def. Mhm. def nañ suñu son partagé nañ yàlla def na lu muy def. vidéo bi kan moo ko partagé. vidéo mu yegg fu mu suñu ingénieur son suñu producteur mu nekk Negro fii moom moo ñu filmé. Mhm. parce que dañoo pare enregistrement rek tak moom mu ne ñu kaay leen ñu def benn vidéo bu ndaw. Mhm. mu filmé ñu après ñu partagé ko ci compte euh, Negro Rap Music moom tamit mu partagé ko ci compte am. booy itam partagé ko seen conte noonu la demee. gars yi di ko partagé di ko partagé yu dugal ko Twitter gars yi di ko retweet di ko retweet. Mhm. donc euh, noonu la dafa affaire bi di gën a dem di gën a dem di gën a dem di gën a avancé. retour yi ngeen ciy jot. fii grand yi fi nekk yi popeur yi fi nekk. Mhm. Euh, légende yi fi nekk. seen retour jot ngeen ay retour si ñoom. waaw non. c'est c'est c'est évident c'est évident ñu jot retour yi te jot nañu retour yi donc voilà quoi. Mhm. daf ñuy gën a ñaax gën ñu liggéeyloo. waaw voilà quoi wallaahi noonu la noonu noonu loolu ñëpp noonu lañ ko jëlee ko mais est que affaire bi bu ko ñoom Bouba partagé wul woon ak ñoom Black M ak yooyu est que gëmoon ngeen ni grand yi fii dinañ ko partagé. bon parce que comme li Talla wax rek. on n'attendait pas ça. ñun xaaruñu woon kenn partagé ko. Mhm. donc te doxewuñu philosophie boobu quoi comme par exemple tey bu fekkonte ne tey. légende yi presque ñoom boobaa bu buñ ko partagé wul woon gars yi nekk fi duñ ko partagé non ñun mm. doxewuñu foofu quoi xoolewuñu ko foofu tamit dañoo gis ne peut-être képp koo gis rek mun naa si yow. Mm. di nga ko partagé. Mm-hmm. voilà quoi. bu bëri problème bi yegg si na Miss The Cash booy bi nga xamante ni problème dafa yéem àdduna woon waa donte ñoom ñëpp assuré mais Miss Cash Coublé bokk na si lu jëngal temps bi Coublé bu yéemee nii wow raar na nga koy gis fii. gaa yi di ko teg di ko ci félicité bu baax a baax mi ngi nii toog dama koy jox mu nuyoo après ñu dugg ak moom ci biir waxtaan bi Mr Cash. waaw salaamaaleykum gars yi. salaamaaleykum ñëpp ñu fi nekk. Mhm. waaw di la di la. di la bégg bu baax ñoo siyaar sama gars yi tamit. Mhm. waaw Mr Cash la from Akatsuki SN from wéeré di wéeré di gang. Mr Cash mi ngay bind sa couplet fu la fekk. liggéey ngay liggéey ngay li ngay li ngay bind sa couplet. li bind sama couplet fii la yi fan nekkoon ak ban ko bind. ak bi nga koy bind ba xam yow xalaatoo lii boo ko prisé dina def effet. bind moom wax dëgg ak comme ba may prise sama yeneen sama yeneen yëpp ak gars yi. Hmm. ñu toog comme ni jàppisee rek noonu lañ bindee suñu suñu couplet ñun ñëpp. Hmm. ñu def ko suñ téléphone lañ ko bindee dugal ko mais suñ nee dañoo xalaatoo ne lii dina si am moom. waxul dëgg. dëgg waaw mais di sant yàlla bu baax. yaa ngi woon ci projet yooyu doon def ay freestyle. waaw maa ngi woon def may ngi doon def ay freestyle. Mhm. Euh, maa ngi doon tamit enregistré studio mhm. mais waaw li mooy jiitu. from PA from from PA euh, léegi damay damay ñëw si ci neem bi Akatsuki bi damay ñëw. Mm. bëri na coow. Euh, Kublai Khalil. bokk na ci lu indi coow li ndax tey jii. suki laa tudd. duma def euh, son Agatsuki nangam ta mooy loolu. Euh, ndax ay kilifaa ñuy seetaan am na yoo xam ne doo ci mën. dafa am benn kuru bu tudd suki ñoom maa ngi leen di seetaan ñi ngi wax nee na ñoom ñoom moom nembeeg yooyu noonu. da nga wala tur ku njëkk a tudd Agatsuki ci ñoom man dama jàpp ni game la. comme ni ma yàgg a tontu rek ñoom njëkkuñu ko tudd sax yéen ngeen jaale doole li ma yàgg a tontu rek laay tontu bi jël tur bi li ma yàgg a tontu rek laay tontu looy tontu mais tontu mooy mhm. ku nekk si ñun daa mën carrière solo nekk si yoonam di liggéey mhm. di enregistré wu néegu rab waaw néegu rab repéré gars mhm. xam ne kenn ku nekk si ñun daa am talent mu ne ñii nii laa soxla ñu créer ma benn projet ñu dajale ñun cinq ñu def benn projet. Mm-hmm. ñu ngi si depuis début de mille dix neuf. Mm-hmm. donc ça fait presque deux ans parce que léegi ñu dugg si deux mille vingt et un. ci nem bi laa maa ngi ñëw. Mm-hmm. ça fait deux ans parce que depuis boobu léegi ñu ngi liggéey. donc depuis bu ñuy démarré. xam na ñun naka la ñuy tuddee sunu groupe. waaw xam nañ ñun naka lañuy tuddee suñu projet bi war a génn. mais tur bi ba tey. maa ngi ñëw waaw ñëw depuis deux mille dix neuf. xam nañ nii la ñuy tudd suñu groupe. et que Felipe waajoon na lépp. waaw xam nañ aussi suñu projet suy génn na lay tudd. Mhm. waajal nañ lépp. Mhm. xëy na nag yàlla mooy def àdduna di dem àdduna di dem nga fël benn moment boo xamante ni mhm. nit dañuy jàpp ni si nga doogee tàmbali. fekk na bi ngay tàmbalee bi ngay sos bi ngay tudd sa tur. bi ngay tuddee sa projet. kenn xamuloo woon. maintenant nag gannaaw loolu nag. ku nekk mën na jóge na di akimoo sa tur wala akimoo sa sa melokaan wala akimoo sa projet wala akimoo li ngay def wante loolu ñun ça ne concerne pas ñu lu ñu concerne mooy su suñu lu ñu jug pour liggéey ko ci loolu la ñuy focus et si loolu moo tax nit yi xam ne ci suñu projet lañ jug focus di liggéey ñu génnee benn son ci projet bi ñamal gaay mi wéré gaay xam ne tu si mentalité boobu la ñuy continuer si philosophe boobu la continuer ba kër gi. waaw naaj li nga li nga li nga développé am na solo Khalil yow yaa waral cool yi tey bu ñu demee ba ñaari Akatsuki yi di werante ñoo ko moom ñoo ko moom gars yi peut dégguñu loolu mais man dégg naa ko ndax tey yaa fi taxaw ne Akatsuki nangam. loo dégg loo dégg. non li ma dégg xam nga du ma ko mën a wax fii direct. lan la quoi mais sa couple maa dégg nga naan Akatsuki nangam sax. mooy loolu tamit. loolu est-ce que bokkul ci loolu. boo ma nee boo ma nee loo dégg te dégguma li nga dégg est-ce que daal man. naa ma la conseillé nga bi mun naa tegaat ko waaw. tegaat ko par rapport ak doole mbala bopp. waaw ci seeni crâne. Mhm. crac crac fii dañ lay fàcc. Mhm. kon dalal jàmm booy woote PCI mois de fëkk. ni nga defal naag say pa pa fii ñoo fi teew. Mhm. pare def lu saal li ci des boo ko déggee est-ce que sa. non mais xale yegg na couple bi. <laughs> non euh, may naa la boo bëggee déglu couplet boo demee siyaar yi di nga ko di nga maa ngi dégg Element yow émission nga ni Akatsuki loolu dama dégg ñeneen di wax Akatsuki gang. jëli dafa mel ni yéen da nga jël turu gaay yi. jël gang bi jël lépp. jëli game ngeen di def. xam nga lan moo am xam nga lan moo am xam nga lan moo am importance. mooy gars yi ne ci hip hop bi yëpp yëpp yëpp ñi ne ci hip hop bi yëpp connaisseurs yi ne ci hip hop bi yëpp. xam nañ ne ñun. koo ñu tëgg tëjal si kabin mm. du rab loolu leer na la du rab. mbapat nga moom non loolu du rab sans texte sans dara du rab. Ah. nga jox ñu tem ñu ñu si improviser loolu. rabloo naa la ba fu nekk yow xalil kon kon garaawul tur amul kii day tudd Mouhamed keneen ko tudd Mouhamed keneen ko tudd Ibrahima keneen ki ne tudd mais doo dee. soo neexee tey ma tuddee sama bopp Equivox ah. Ah, léegi léegi jox naa la équipe bi jëlal Equivox bi. xam nga ah. xam moo am importance. mooy talent bi. temps am nañ talent ñu ngi liggéey quoi te damay insister waat si li mu la wax. Mhm. artistes yi nekk Sénégal ne ci hip hop Galsen bii. Mhm. xam nañ ni koo si koo ñu si tëjël si cabine. tegal ñu ay bit yu la neex du rap yow loolu leer na la. Ego Trip la bokk Mr Cash. Bandi jamono bii si euh, nekk instant bi looy waajal. wala ba tey yéen a ngi gérer ak at. waaw instant moom waajaluma dara instant moom lii la ñuy. kii bi daal si promo wéredi bi. non instant bii nekkul ci promo bi kese. instant bii nii jamono bii faam ngeen làbbali Caravas bi ah. Hmm. ah gaa ngi leen xaar parce que ñu bëri nee nañ son bi ngeen ko tànn. waaw hmm. ah, moom nee nañ bi nga teg nii moom dañ ko tànn gars yi ñoom élément ak xalil ñëpp dañ ko tànn. de lii dañuy xaar laneen li ci kanam quoi ba xam ni gaa yi wax am na wala amut confirmation la soxla. waaw yaa ngi comme comme li la élément tontu sànq rek. Mm. retour yi gis nañ ko vraiment gars yi apprécier nañ son bi si jëm boppam. ma mm. wax sama couplet. buñ ma woowee dañ ma naan affaire bi jàpp leen day dem. Mm. xam nga son bi yëpp lañuy wax quoi en global. donc parce que man bu nekkoon sama couplet kese laa teg. amaana da nga koy déglu nga romb dem mais da ngay déglu son ba mu faj la son bi yëpp. après nga nga réguler waat dem dégluwaat son bi yëpp fajaat la. Hmm. donc kon c' est l' équipe quoi. Hmm. c' est Akatsuki SN. Euh, man daal li may wax gars mooy merci gis naa lépp. Hmm. gis naa taxaw bi gis naa commentaire gis nañ tout. waaw di leen wax ne nag dina gën a cool incha allah. dina gën a cool. ngi xaar ne ci kanam rawul ba bu dee tàndal wala du tàndal leer mais sóor yow it euh, sa sa waa koñ. sa gars yi retour yi ci am. dafa nekk loo xamante ne mbégte la quoi. gaan yow nag jaataar nga nag jaataar nga. loolu est-ce que nekkul yaa ko mujjee wax. Ah. jaataar nga quoi. loolu gars yi waxuñu ko. gars yi dañ ma waaye gars yi dañ see coobu sonn mais mënuñ ah. Ah, nii nii ak yow jaataar maanaam jantal booy nga ku la xool xam ne jantal booy nga ak bës bi nii kaana bi xam sooy yooyu baa yaa ngi def attention pour gën a concentré si job beeg yooyu. non mais man xam naa ni ma bëgg. naa ni Mr Kees moo xam naa doxul si yooyu quoi kanam yoone wu ko. yow yow rek yow. man moom mooy man ak élément ñoo yam man ak élément ñoo yam. xam nga rek am na loo xamante ne da nga ko daan def léegi amatoo jot bi pour def ko xam nga ay toog si gars yi de telle sort que journée bi yëpp xam nga toog si booy waxtaan werante affaire yooyu loolu yëpp léegi presque dafa dagg quoi parce que job bu bëri daf lay xaar studio. nga war a bégal ay nit léegi yow loo gis yow. Ah. waaw ñun lu ñu rab coxotaan na sa nopp bi de. Ah. non nice chill chill. xam nga. rek dafa nekk loo xamante ne. faa nga si xam nga ni am na problème. noonu la fa demee. waaw dañuy woog de. baax na liggéey xaar. Eh, jamono bi lu ngeen di waajal yéen a ngi préparé show euh, pour woo waa PA ñëpp ñëw teew. gis seeni doom. xam ni ñi ñooy yëngal temps bi jamono bi parce que jot na nag ngeen teg dara biir PA gaa yi wuy si leen keroog maa ngi koy déglu Pape Siri di ko wax biir akapes pourquoi pas ngeen teg fi benn affaire ci tàng tàng. waaw loolu yëpp lu war a mën a nekk la franchement lu war a mën a nekk la mais comme que ñun moom dañoo àndoon ak ay kilifa ba tollu fii. donc du fii la ñuy bàyyee suñu kilifa di demal suñu bopp donc ku la nit su la jiitewee ba nga egg fii nii kon da nga koy def confiance bàyyi ko mu continuer di la jiite quoi. ni ma rek ñun sant rap lañ ñu sant suñu toogee fii duñu wax waxu lii lañ war a def clip bi fii la war a génnee fii la war a daw émission bi lañ war a def pour te dire ñun dañuy toog rek am ngeen émission am ngeen lii def leen lii def leen lii c'est juste. waaw bul waxee dënd nag gaañ. dama la daan gis si mbedd mi nga daan saay fa yow ak Khalil. man teewee na ay saafe yu bëri yoo xamante ni jël ngeen ko. yow ak xalit jël ngeen ko xalit des fois mu jël des fois yow nga jël. invité nañ leen ay yoon yoon ci teeb yi ngeen fay wane seen bopp bu baax a baax ba gars yi sax jàppoon leen ay freestyler yow xalil euh, bu ngeen indee lii keroog bett ngeen yu bëri. bon ñun moom wax dëgg yàlla moom dañuy liggéey ku ñu xam tamit ci liggéey nga ñu xamee quoi mais. voilà quoi waaw yow xaalis moom représenté ngeen tàngal ngeen mbedd bi ba mu tàng jër Mr Cash bi moo nëbbatu woon. léegi saay yi euh, dañ koy arrêté capital <laughs> na xam naa ne yow xaalis amatoo leen jot. bon voilà quoi ñun daal instant yii nii. saa yaa doon wax duñ ko mës a bàyyi loolu da nga daan taxaw di ko tey yàlla tourné na affaire yi da ngeen koy bàyyi wala day continuer mais instant yi presque moo ñu tooj parce que niveau bi ñu am nii. sacrifice yi ñu yàgg def la donc voilà wat ba léegi bàyyiwuñu ko mais dañ koy gën dañ koy gën a taaral gën a xool na lañ koy defee di yi dina am wala duñ ko arrêté mais mais mën na bañ a nekkee noonu mën na demee bañ mën na bañ a demee noonu tey jii nii yàlla mën nañ dimbali bañ am doole boo xamante ne nii mën nañ liggéey ak par exemple ak mën nañ liggéey ak Equivox TV wala ñu liggéey ak Rewmi FM wala ñu liggéey ak benn euh, Vibe Radio ba nga xamante ne nii tey saay fay ñu doon teg ci mbedd bi dañ koy jël indi ko ci plateau yi ñu koy def direct ñëpp di ko seetaan ñi nga xam ne amuñu woon jotu génn dem seetaani yi mais ñëpp di ko seetaan ci internet bi loolu tamit suñu xel mu ngi ci Element yow euh, yaa nekk benn artiste underground boo xam ne génne goo projet di feesal estat xëy na peut-être li may wax nii dina jaaxal ñu bëri ñu may seetaan man teewee na ay événement am euh, saa itam tundu mbuur boobu noonu estat yi système bi koy feesalee da ngay jënd ay ticket maye ko gars yi ñëw wala da ngay jënd ay ticket nu muy demee. parce que ku génneegul projet di feesal ay stade. loolu waa Akhlou Brick laa ko xamee woon ñoo ko doon def saa boobu. yow nga ñëw di ko def. en tout cas nekkoon sa ginnaaw nu mu demee noonu. loolu ñu si yàlla dimbali ñu mu fees dañ koy sante yàlla bu baax di ko sante Sénégal yëpp di ko sante waa Géeraw di ko sante waa Mbuur mhm. di ko sante waa Piye yi mhm. donc gars yi nañ gën a xaar ñoo ngi ñëwaat incha allahu rabbi ak ak Akatsuki SN mhm. incha allahu rabbi nañ waaj bu baax a baax a baax a baax yow moom marqué nga bu baax a baax maa ngi fàttaliku bi ngay jël euh, Saifa double euh, hip hop service euh, bu nekkoon Saifa bu metti nga jël ko ci kaw booy Tivaouane Peulh bi Paco Bridge Paco ñu la doon félicité si lool bu baax a boox boobu membre jury laa woon euh, mais xale ci diggante bi dañ ci liggéey liggéey bu am solo. waxu li a neex ko 2018. waaw waaw da ngeen ko tegle waaw da ngeen ko dëgg yaa ko jëloon 2017. saa jël ko 2018 da ngeen yàgg a taraay mais dafa am yeneen gars yi fi nekk tamit yoo xamante ni da ngeen daan ànd eh, gisuma leen ku ci mel ni Barou Dawaïs ku ci mel ni Mame Kha ku ci mel ni ñeneen ak ñeneen. anam léegi yéen eh, gaa ñu ngi fi gaa ñu ngi fi. ci àdduna. àdduna day seppi rek taal ñenn. waaw question yàlla. waaw. yow ak ñoom kii derrière yow dugal. yow ak ñoom de deewul nee na. li xewoon ni comme ni ñu doon gisee démb. ngeen leen gisee at tey tey noonu gisee at tey. ba dawaase dama ko gëj a gis sama ànd ak <laughs> gisoon démb. noo ngeen gisaatee tey noo ngeen gisaatee suba noo ngeen gisaatee ginnaaw suba mhm. nekkuñu ay nit ñoo xam dañuy changé mhm. lii du dara ay yëfu àdduna la rek diggante doomu aadama nit ak nit ak nit moo ëpp solo mhm. lii du dara ñu jàppoon ko dara peut-être si kanamu gars yi lay rëy nii rek mais li yàlla di dogal si si si bi kenn mun si dara ala kulli àll dañ si jot tey yéen a fël war a téye flambeau bi diis na trop flambeau PA téye ko dafa diis mooy capital bi doonte grand fay dëkk bi dëkk boo gis am capital PA mooy capital flambeau PA flambeau <laughs> non. <laughs> booy flambeau bi ñu leen jox dafa diis de li gaa yëkkati teg ko seen loxo is ce xam ngeen ko. Hmm. yéen a ciy bàyyi xel bu paax a baax flambeau bi ngeen téye. flambeau bi waaw dinañ ko hmm. bu nekkee daa am lu ñuy xaar ci ñun. Hmm. dinañ def parcelle bi daf fi amoon doole. dem ba ci biir dee. ñoom élément ñoom badu da waay di góorgóorlu di teg ay saako di ko jéem a dundal. ñu dem ba si biir ñoom it teggi tànk tombé Covid bi yegg si affaire yu loow. ñu jékki-jékki saa gis euh, Akatsuki euh, SN fël di yëgalaat baar bi. baar bi day gën a aju warul defaat nii parce que parcelle dafa war a amaat ay gars yi fa ñëw teewalaat ko. mais yéen li ngeen war a lijjanti mooy lenn mooy public gu PA bi ngeen war a wax ñu ñëw support leen nu ngeen mën a def communiquer ak ñoom pour ñu ñëw di jàpp seen i def leen ko looloo leen manqué. nga xam ngeen loolu wala mosoo leen ci bàyyi xel. comme waa PA ñoom ñu support. ñëw support ci artiste PA yi. instant bii nii man ci net bi damay gis ay boo yoo xam PA lañ mhm. dañuy ñëw di support mais da ngay xam ne ñii. bëgg nañ ko quoi bëgg nañ bëgg nañ bëgg nañ lii quoi. Ah, xam nga xam nga laa bëgg wax comme nekkul ñun dañoo ñëw aj baar bi de. Mhm. baar mu ngi fi woon. Mhm. dañ ko gisul woon. non non ma xam ne yow booy grave nga rek. <laughs> booy grave laa ma yi dañoo xam baar de. <laughs> waaw boo tax ma lay tegal baar yi ngi ñëw sax ñi ngi ñëw. gars yi ñu ngi feeñu ñu ngi leen gis ñu gis commentaire yi gis message yi appelu grand ñu ngi leen di gis ñu ngi dégg tamit bon ñoo ngi ci quoi ñoo ngi ci carrément. bon li may wax gars rek mooy waa Akatsuki SN ñu ngi ñëw. lu ñu jot a gis lu tuuti la rek. am na ñoo xamante ni ñu ngi naan booy du ñu dem xam nga. lii tandus la rek mais li ma leen di wax toujours rek liggéey nañ quoi ne liggéey nañ benn projet boo xamante ne du du ko jugeel sama bopp mais bés génnee Sénégalais dinañ ko jugé incha allah waaye dina wax aussi xam yi xaaraat ci kanam ak ak Akatsuki ñu ngi ñëw bu baax baax incha bu dee yàlla waaw di remercier Sénégalais yëpp xam nga di di di jaale sama sama mbokk yi nga xamante ne nii sama cousin yi sama ñaari cousin yi nga xam ne dañoo dañoo dañoo décédé ci ci ci yoonu Espagne bi donc maa ngi koy jaale Sénégal yëpp bon di la jaajëfal bon di jaajëfal suñu beatmaker bi xam nga ki nga xam ne moo tëgg instru wérati bi mooy euh, pharmaciste bi di bëggee Philippe di bëggee Néegu Rap Music xam nga di bëggee sama gaay sama gaay yëpp xam nga waa Akatsuki SN wéradi wéradi wéradi gang di ko lancer appel waa parcelle ñu ñëw xam nga seen artisans yi nii waa Mbour Sénégal Afrique seen artisans yi nii xam nga ñu représente der bu ñuul incha allah. jaajëf sama gars yi loolu la woon dañu ñëwoon tey fii néegu rap fekk fi Akatsuki sama gars yi ñoom Element euh, Sori ñoom euh, Tala euh, xam nga Mr Khalil Mr Cash waa ju bëri coow dégg naa leen yen ñëpp di leen jox rendez-vous beneen yoon xam naa ne nag yeneen Akatsuki beneen gars yeneen gars yi xaar leen ma maa ngi ñëw dina leer. Eh, gaa yi wax nan yéen da ngeen di wax ñun noonu la ñuy liggéey jaajëf ba beneen. ñuy ñooñu respect ci ñëpp. xam yow yow man. Agatha baal comédie bi émission bi jeex na baal comédie. wéradi wéradi wéradi ay booyee dof teg tëradi ay sa taako rapport ne ko fële buy fay teg saako li ngoom di leen mari ne wéradi wéradi wéradi ay mbëgg la jël rouge bi gën fi fii sa gel bal bi ni Zinedine ma la balu goon may fëkk bopp crédit ay piqué di kii ko faaka ne dëgg ñu digg gën a ñu di digg dikk te daggu ñu tikkee dañuy dem bugguñ kenn fen yee ma la maay tupac gën leen bi ay bopp laay kutaa gën leen bon di bëri ay pétas si biir game yaa mën si biir te jël yoon bari weer la bés ba tëjoon sa gat bi fi kenn du la gën fi kenn du la fët fi fët ñu gën a la gën ne ko bii bu baax bi lay doon itu bëri ñu it ko rek toog takka jabar kay takk ay boon jël fitu nit fi taar ko seen xon sawaati seen xob bi ay seen sëriñ yor na sama tur mais ki yor li rab bi demul kenn mooy ko loxo na rap bu jug rek na maa fi teg dem leen liggéey te bàyyi égo toog sa gaala bay ñu lay photo sa slip nekk tapet pare ñoo di geng sa fii mosoo fi dégg benn rappeur comme ko taan nga dégg waxu taat laa la wax na nga si xel juróomi rappeur sa taati fàtte ni juróomu babi su rosee nga pett fay kay ma ma sa rabbi tem faw di jëtaal takkal ma ren di boo fi nekk te rabu ñu baaw ñu seen gàtt ngi ceeb eh, te li ñuy faj jaayu pharmacie. suñu njëg dafa cher. ndax bi ñuy mar mu suñ naan ko. léegi yéen wax leen booy ñu wéer bu dee ram ngeen bëgg a dégg comme machine. léegi ñu ngi xaar ñu mu jee di nga guddee toog ba mu jee dañu wér. wéradi wéradi wéradi. dañoo dof du ñu wéradi dañoo dof duñu wér. flash ngeen bëgg ñu may la fi shoot ay dañu kawee ba neex ñu dégg waxal sa baay du am écoute marine rappeur pacal li ngom baaraam duróof sa tuun waxal ma ki lay tingóob paaka tëggu album bi bomb comme bu lii ban seen carrière romb pan da ngeen cànkan mooy dóor baalu bopp bi gang ten thousand maata lañ bi lee ñi leen di seetaan ñëpp amuñu gis-gis ay gumba ñoo fi mais million de vues équipe yëpp ñu soxla ni Messi signé néegu rap musique ñoom moom année bi pampan dooleem baalu bopp ci seeni crâne crack crack fii dañ lay faj kon dalal jàmm booy woote piis yaay motherfuck ni nga defal nank say papa fii ñoo fi teew pare def lu saal aga si ndee ni nga kattal sa e ñooy saltel ci son pour tëdd sa mère toogal di duul naan talent fay bi ñu piqué ay négas ay ramos di dee chargé suñu flow comme ay caterpillar sawla ci son jox sa papa naan keneen ku fi tuddee ni nga akatsuki suñu càggal nga doon ñu lay dëkkee di la bi ñu ballon d'or yaa ngi pipi kaka ñooy saaga sa e nga naan si si saf ñooy tikki taka doo sikki saka da nga tàmbu ko wan bi saka proche di nga ko dégg comme sa na la demal toog waga ngay jaay aja dalal ko naa kat sa e na demal toog nopp du wax tooñ ma muy gas nga sa paax ya du mën a baax te gumba neexul a nax yow mën nga ci naax ya bëre nga mujjee def jaax encaissel paaka tat ragal bi encaissel puso tat soo kaana mafia bu gën a tar foo mel di wax soo solo so sak sa gaay du baax foo mel ak maara fakka yi di wax foo mel ak maara fakka yi di eh, juutal seen gel teens maane ne seen baarite naa ñu bier dañoo dof duñu wér lu ñuy fa jaayal pharmacie suñu njëg dafa cher ndax bi ñuy mar musuñ booy ñu wéer bu dee ram ngeen bëgg a dee comme machine léegi ñun ngay ñu mu jee di nga guddee toog ba mu jee te du ñu wér wére di wére di wére dañoo dof du ñu wér wére di wére di wére di dañoo dof di wére di wére di eh, wére di akat sukki SN gén